C'est intéressant. Euh, oui. Le lekk li di di wax. C'est très je pense que suñ ay autorités kaw di leen ci université yi dañ ko war a réformer. change lépp. Hmm? comprends nga boo ñëwee ci mathématique arabe bi. alif bi mooy benn. ba mooy ñaar. foofu chiffres ak lettres yi lañ boole. daf dañ ko dañ ko kat moo gën a gaaw. <laughs> comprends nga. Uh-huh. léegi boo maîtriser tey permettre sax parent d'élèves yi du ñu fay école ñaari yoon parce que fi mu toll nii boo bëggee sa doom am àdduna am àllaaxira da ngay fay ñaari école uh-huh. da ngay fay école tubaab bi fay école arabe dafa dafa cher uh-huh. yow nañu am école boo xamante ni ñaar yëpp da nga ko fay am tey jii bu ñu bëggoon bu ñu bañoon xeex ni l'exploitation des talibés wala ni ñuy demee nii affaire yu demee noonu mais nañ bu def école yëpp def ko franco arabe am na les daara moderne yi yooyu mais da boole yëpp benn parce que éducation éducation nationale mu nekk franco arabe. nekk franco arabe nga dugal ci anglais ba pare dugal ci olof. Mm-hmm. franco arabe bi laa ko tudd rek parce que dafa am ay écoles yu ñuy wax franco arabe. oui mais normalement école yëpp dafa waroon nekk école multilinguiste. Mm-hmm. nga xamante ni sa doom bu mënee lire euh, nu mu tuddati bu mënee bu maîtriser la lettre arabe à l'école mais day mën a liir la Coran naturellement ba day xam sens bi. bu ko defee yow en tant que parent da ngeen mën a waxtaan ci diine. Hmm? ndeysaan. Euh, te religion moom mooy mooy permettre que euh, nga am l'éducation morale bu baax. jikko uh-huh. bu rafet. parce que yàlla rek moom moo nekk fépp. d'accord boo gëmee yàlla di ko topp boo wéetee gore boo wéetali koo gore. Uh-huh. et loolu du am problème par exemple ñun suñu genre bi ñu ne Sénégal c'est un pays laïque. dafa am ñeneen ñu ñu ko bokkantel franco arab boobu ngay wax du poser problème. pour les autres laïcité lañ nekk te ñaata euh, école catholique yi ñu fay jàngee di doomu jullit ñi. ah kay lan la mhm. parce que heure catéchisme ñoom duñ ko def. Ah, yu mhm. loolu. <laughs> il faut débat la. effectivement <laughs> alors jëriñ euh, ak euh, donc Maltulay je pense que jot nañ di benn benn xibaar xibaar bu tiisan. Hmm. mooy que di voilà. Abdou euh, comment il s'appelle encore euh, mooy ku fi nekkoon le euh, premier ministre bu Macky Sall. Abdoul Mbaye. non non l'autre là. Boun Abdallah Dionne Boun Abdallah Dionne xamal que finalement. wàcc na liggéey oui wàcc na liggéey finalement génn àdduna xam naa dañ koy jaale Sénégal yëpp. donc ah. ko également ay ay mbokkam xibaar bu tiis parce que boo xoolee réseaux sociaux yëpp. donc ñu ngi koy ñu ngi koy statut M4 réaction sax gis nañu que ne tamit Neymar yi mu génne information ci biir groupe mais alhamdulilah. mais c'est triste comme nouvelle aussi. alhamdulilah rek yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. amiin amiin amiin amiin. ama dund ak dee moom ci loxo yàlla la. day sa amiin sa bis moom. yàlla nee na bu jotee du romb waxtu ah. <laughs> foofu nit ki am fa jàngat bu rëy jëwriñ euh, sensation bi ma am léegi genre euh, ñu ngi moom it bokkoon na si ñu doon ut nguur gi nguur gi nakate boobu nguur gi bu taxawee sax du fekkee donc foofu tamit nekk na jàngat bu rëy ah, pour ñun nii di ut waaw ah, ndeysaan di ko di ko di ko doy metti na yàlla na ko yàlla na yàlla ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal ay bàkkaaram yàlla yàlla yàlla suuf of oyof ci kawam ko alhamdulilah métti woon na parce que boobu euh, feebaroon la fi feebar bi yàgg ah. donc à la mhm. suite ci la ci la révélé waat ci làngu politique bi. Mhm. même ba durant campagne bi ba muy waaj a jeex durant élection yi lu ci gën a sax mooy que à chaque fois dañu ko doon annoncé que ne bu njëriñ génn àdduna bu njëriñ génn àdduna. non dialogue bi mi ngi foon dialogue bi Macky Sall mu doon organisé. mi ngi mi ngi foon. Mhm. te bokkoon na sax ci ñu bëggoon ñu reporter élection yi quoi bokkoon na ci quoi. ñu si bëggoon mais lu ci ndaxal rek temps yi élection rek euh, ñu bëri dañ na wax naan la àdduna génn la àdduna génn la àdduna. mais loolu ay fake news rek la. dafa fekk ay fake news la woon. mais buñ demee ba nga xamante aussi également gis leen lii bu xalaatee loolu parce que nit ki moom defe naa doo ko rey te yàlla jëlu ko. Ah, euh, bu fekkee lii moo am waxtu bee ngi door a jot. ñaata ñaata artistes lañ fi rey te deewee bu ñu woon. <laughs> donc boo xoolee ren si élection yi yàlla wan nañu si ñaari yoon boppam si ñaari candidat yu soxla woon. yaa ngi dégg wax ji. donc nañu nañu war nañu war nañu war nañu xoolaat bu baax. ñu nit suñu bopp xaw waay waay. oui. itok xaw xaw nan jaay itok laa. ci mhm. gaañu woon laa. Mhm. jotul woon ah mais dund ak dee ñoo ànd ah. Mhm. dund ak dee moom ñoo ànd. façon mooy. Euh, saa su nekk rek nit ku nekk day war a jéem a def pexe ba saa su nekk rek nay nekk ci lu baax ko ah, exactement exactement parce que lépp loo gis rek mujj bi moo ci am solo ko mm-hmm. mujj rafet bi moo ci am solo ko mm-hmm. en tout bu baax baax boobu mm-hmm. Abdoulaye Dione di euh, sa famille ñoom tamit ñu leen koy a baax euh, dañuy wax ci suñu dernier bokk mooy discours du 3 avril je pense que Bassirou Diomaye Faye dernier discours 3 avril discours à la nation nga xamante ni moom la ci wax te moom lañ ci gën a euh, retenir mooy que ne nee il va lutter contre la corruption. Mm-hmm. te dina ko lutter lutter bu am doole ba nga xamante corruption au Sénégal. Mm-hmm. voilà dañ kiy dégg dañ kiy dégg li rek. Mm-hmm. Euh, je pense que aussi également loolu c'est mesure bu nga xamante je pense que beaucoup de Sénégalais ñu koy approuver donc di wax que ne loolu bu lekkee kenn am na donc voilà peut-être euh, dinañ génn ci sous-développement bi nga xamante ne ci. bon lutter contre la corruption moom gis nga dëkk yi développé. Uh-huh. bul sax sonn na xeex la boo xam ne du jeex. ba dañ ko wàññi quand waaw xam naka lañ koy wàññee. oui justice boo xamante ne xàmmewul dafa tëddee njaaxaanaay te ñiy jiitu tamit foofu ñu jubal parce que ki lay jiite bu nanguwul sàcc yow mi muy jiite doo nangu sàcc doo am fit bi waaw wala bis boo sàccee tamit du la jéggal. mais bu fekkee ne yow ki lay jiite. Uh-huh. dangay gis ni moom. day luubal day luubal yow nooy def bu fekkee na amoo doole yu biir dëgg mais corruption moom te dafa bëri ay form dafa bëri ay form te gars yi léegi dañuy wax ni mais corruption yow tey jii mën nga nekk ministre nga war a jënk le budget nga war a joxe marché boo xam ne ay milliards la ngay xool koo koy jox. ngir jaar ci suuf mu am lu mu la jox loolu corruption la. Mm-hmm. maanaam doo def appel d'offre. d'accord. président ñëw indi la caisse noire ne la loola neex def ci. kenn du la oh. contrôlé kenn du la maire yi maire yi jox la kees ne la kenn du la contrôlé. président assemblée jox la kees na la kenn du la contrôler mais mel ni dëkk bi ñu dañoo am alal bu doy ba ne jàng <laughs> <laughs> yoon. du yoon franchement. ngay dem ci yenn administration yi di ut kayit. boo nuyoowul nuyoowaaleewul dara. sa kayit du gaaw. demal prison demal fële cent mètres ñaata prisonniers ñoo fa fay avocat gisatuñu avocat ba boo demee tribunal da ngay gis ñoo xamante ni te tribunal la ñuy xëy si te liggéeyuñu fa mais ñoom ñooy def coxer diggante ñu ñu fay àtte te amuñu ah, am ay courtier avocat lañ hmm? yow Sénégal dafa yàq boo demee port aéroport foofu la foofu la foofu bi gëddee wulee jaayoo yaa ngi dégg wax ji donc ñun dañoo am si suñu xel xaalis kenn du ko liggéey da koy lijjanti. corruption ci wàllu. corruption dafa nekk ci ci feebaru biir la. Mm. feebaru biir feebaru na ça fait partie de la nature de l'homme corruption. da nga koy da koy faj nag feebar la bu ñuy faj. alors ko xeex bu métti. dafa war a métti dafa war général. te njiit ñoo ci njiit yi ñoo ci jiitu. ñoo ciy quoi. déggoo ma ne la sànq nit ñëpp bokk. bu ñu la ko dénkee balaa nga ciy def dara da nga ciy waxtaan ak hmm. donc mais nag maandu dafa jafe ko ñun ñëpp ku ne ku wét xam sa bopp. lekk lu tey. waaw maandu dafa jafe maandu dafa jafe loolu xeex la boo xamante ni te loolu buñ ko defee buñ ko xeexee comme ni mu waree xaalis bi daan dem yëpp ci loxo sàcc yi. Uh-huh. buñ ko delloo ci waa dëkk bi léegi nga gis lépp yéwén. delloo ko wat si gafa dëkk bi. waaw non ci waa dëkk bi. Mhm. xam nga ni dëkk état dëkk bi la war a liggéeyal. Mhm. état moo tax sànq ma la la état day topp nit ki bu mu juddoo ba keroog muy faatu état da koy topp. sécurité maanaam ni ki li muy euh, li muy dundee da ko war a am moo mu doy. léegi état foofu lan lañ ko sant mooy dëkk bi nañu bay loo xamante ni dinañu doy pour dund moom lañu bay dundee mooy autosuffisance alimentaire. parce que li ngay li ngay dundee bu fekkee mënoo koo liggéeyal sa bopp dem di ko jënd bitim réew mais doo am doo doo am liberté mm-hmm. hmm? li ngay dunde li ngay sol yaa ko war a produire yaa war a produire fi ngay dëkk yaa ko war a tabax mm-hmm. hmm? mais ci kaw loolu boo feebaree da ngaa war a faju ah ba pare am sécurité état loolu lañ ko dénk Mhm. léegi état bu mënul répondre loolu faillir na moo tax ñu jox ko àllalu dëkk bi moom la war a sàmm léegi nag ñiy liggéeyal administration mooy ñiy liggéeyal askan wi mhm. boo demee mairie kay fa nekk alkaati bi ci tali bi gendarme bi militaire bi ki dem port douane bi mais ñooñu askan wi lañuy liggéeyal d'accord mais fii nag contraire bi moo fi am quoi askan bi yëguñ seen bopp ne ñu ngi leen di liggéeyal ko sinon sax ñoom dañ leen di dañ leen di dañ leen di mbir bi daa gën a diis ci ñoom <laughs> dëgg la en tout cas ça sera peut-être difficile mais ñu ngi leen di ñaanal quand ñu réussir mm-hmm. donc Bassirou Diomaye Faye ak euh, gouvernement bu nga xamante ni d'ici euh, quelque temps dina ko amal. Mhm. Euh, xam naa Mantoulaye dañ lay bàyyi nga nga tàggatoo. di tàggu ñëpp Pape di la tàggu. Mhm. di tàggu téléspectateurs yi di kontaan si ñoom di leen jaajëfal. Ah, ndax jënd sa connexion wala am temps wu toog di déglu dafa xaw a metti mhm. donc ñu ngi leen di jaajëfal parce que ñoom ñooy suñu doole. di di gërëm jëwriñ ñaase bu baax. kontaan naa trop si toog ak moom. ndax gis naa ni da enrichir. Euh, boo ko doon déglu fii ba suba maanaam euh, doo doo doyal loolu laa gis si moom li man naay toog ak Clédor euh, da nga mel ni ku ku ku ku kuy kuy wat magasin si yow et defe naa loolu moom mm-hmm. a dal ak jëwriñ Niass ah, donc ah, di jaajëfal bu baax a baax ah, et puis aussi di massawu famille yu Boun Abdallah ah di leen ñaanal euh, tiis bi yal na yal na oyof euh, si ñoom. defe naa ñun ñëpp euh, ñoo ko bokk. li ma naay Sénégal dañuy bokk nday bokk bàyyi. Euh, donte yu metti xawoon na fi jaar mu bokkoon si nguur googu sax ak yaram dégguñu ko tamit si dara mhm. euh, mais defe naa tiis bi boo ko yéegee foog mu am loo xamante ne daf la dompat euh, mooy paix bi nga xamante ne suñu président woote na ko mhm. ndax dafa wax bennoo jàmmoo juboo mhm. donc mu def defe naa suñu devise dëkk muy un peuple un but et une foi exactement moo tax lay jaajëfal bu baax a baax a baax yow mm-hmm. rek di am toujours plaisir di partager ak bi waaw ah, sant rek sant rek Pape di gërëm Matulaay aussi ça a été un plaisir bokk ak yow plateau euh, tu es quoi ma ne ko vous êtes inspirante euh, ñoo ko bokk quoi affaire yi moom way kenn ku ci nekk yaa ngi ak boo xam ne ci yow yàlla def ko si sa morom donc euh, ku ci nekk rek boo demee bay wax rek na nga wax sa kettalay gi kàttan rek bañ ci dugal caaxaan quoi mhm. mais sa a été plaisir je pense que ça ne sera pas la dernière fois. du tout <laughs> man du ma ko nangu sax. sànq dama ne woon ni fi ngeen ma dugal dafa aussi man je préférais toog à côté seetaan mais le fait que ma toog euh, def na ma plaisir man kañ dama naay su ma ko doon am chaque jour parce que jàng la. loolu jàng la quoi. Euh, sauf qu'il est trop modeste pour euh, apprécier ñu. donc. c'est ça en ñu leen di jaajëfal bu baax a baax moytule ak jëriñ te kontaan na donc à chaque fois di partager ak yéen mm-hmm. plateau bi donc yéen ñu leen seetaan yéen internet yi leen wax ki leen mën ngeen partager liker eh, di amee je pense que loolu tamit day bokk ci lu nga xamante ni moo leen gën a euh, dooleel dañ di jox rendez donc ba mardi incha allah ci beneen émission face à l'opinion merci jërë ngeen jëf